télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow yaram ngir sama laanu mi dundee. fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. ngir nga mën a sa jaar jaar. danga ko seetaan bu dara raw. Mm. visibilité dinga am promotion dinga am. nanga wane sa ci émission jaar jaar ni nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mëne ndax ñëpp xam Ladoum TV ñu mooy sunu télé Ladoum TV di fa am béto fii ma jaar santé ani téléspectateur Ladoum TV comme ni ma leen ko waxee rek Ligue des champions baa ngi nii finale bi nga xamante ni sii mooy finale Ligue des champions rendez-vous des grands éleveurs allah comme ni ma leen ko waxee ñu nekkaat ba tey ci bergerie bi nga xamante ni sii mooy bergerie Dame Lo ñoom dañoo jël ñaari bergerie macha allah ci beneen bergerie bi nag ah gis nañ fi benn maal bu doy waar xaw ma maal la xaw ma espoir la kii xaar ma def ko espoir rek parce que kii ca cuulul ba ak ay jabaram yi mu àndal. waaye Mor mu présenté salaamaaleykum waa di nuyuwaat waa Ladoum TV di wax ni ñëw nañ ci deuxième bergerie bi mu nekk bergerie daaray Koki waaw ñu indi fii benn mal ñu koy wax rond-point fokk na nag waaw mais asam mi ngi ci dix-neuf mois mais fokk na macha allah mu nekk doomu rond-point nekk doomu gaynde tudd rond-point yaayam ñu jël doomu Saalum Saalum ak Calvin Cap boole leen yaayam juddu ñu jël yaay ji jox ko Rijal Rijal nekk doomu roi Saalum ci la yaayam juddoo doomu Saalum lañ jox sutu Saalum Saalum mu jur yaayam waaw noonu lañ composé xar bi ñu jël sëtu Saalum Saalum boobu joxaat ko gaynde bu doomu Saalum moom mu judd waaw moom rob looloo ko composé téléspectateur Ladoum TV yéen a déggandoo li nga xamante ni si moo composer rond point nga faram fàccewaat ñu ko pour nit ñi gën a comprendre rond point ci biir Saalum boobu lan lan moo ca nekk. waaw rond ci biir Saalum boobu mooy li waral tuuru rond bi mooy comme ni ma la koy waxee sànq dañoo jël doomu Saalum Saalum ak Calvin Cap rakku Picasso ci maanaam bu jigéen lañ jël jox ko Rijal Rijal nekk doomu roi Saalum yaayu rond judd. ñu jël yaay rond-point muy Netflix jox ko gaynde rond-point gaynde di doomu Saalum aussi waaw. macha allah téléspectateur Ladoum TV lii leer na kon lu waral turu rond bi wiiri wiiri rek si rond bi ngay taxawaat ci benn place muy fan ca Saalum ba nga xool tey rond-point mi li mu composé. tey fan nga yaakaar ne rond war na fa mën a yóbbu seen élevage tey particulièrement élevage Sénégal parce que rond point mi li dajaw ci moom yëpp du ay caaxaan. waaw rond point fu Saalum yóbbu élevage papam di gaynde yóbbu fa élevage moom dana ko yóbbu fu ko raw ndax boo ko xoolee da ngay gis papaam ci moom gis leneen lu lu dul loolu ci moom mooy da ngay gis papaam piste de mastration kon kooku te macha allah mi ngi koy def ci bergerie ba. liñ ci jot a ci échantillon gis nga taawam bi mala la wan sànq fële ñu indiwaat fi ñaari mbote mais lafa des ñoo gën a garaaw li ñëw waaw la des moo gën a garaw ndax euh, xam nga rek foire kenn mënta indi lépp waaw da cos da ngay ciy cos rek ci échantillon bergerie bi rek ñëw teg waaw mais incha allah élevage u Sénégal dina ko yóbbu ci kanama a kanam a kanam bi moom waxatuñ loolu waaw bergerie bi moom wees nañ ko mais élevage Sénégal ci boppam rond point bi nañ ko bàyyi xel dina ko yóbbu ca kaw a kaw a kaw waaw incha allah. téléspectateur Ladoum TV daw leen wuti ci doomu rond point yi xam ne kii du ay foddu ay caaxaande rond point mii ñàkk am ci ay doomam wóorul ba tey gis nañ fi benn grande femelle ci biir box bi waaw mi ngi def robe bu weex tal waaw grande femelle bi moom tubaar fakkal la waaw grande femelle bi li ma lay wax ba comme ba tey ci liggéeyu bergerie bi grande femelle bi. moom euh, doomu kaar-kaar la yaayam nekk doomu commandant costaud waaw nga gis ni comme ñun bergerie bi mooy li ma wax sànq rek ay échantillon yi ñuy indi li ñuy indi ci échantillon bergerie bi la ba tey comme ñu ngi ñëw ñu ne nañ indi benn femelle bu mag rek comme yëpp fi lañ juddoo même ba ci femelle beeg ñëpp mais nañ indi lu ci nekk rek tuuti ci ñoom ndax lépp mënul ñëw waaw boo yoroon cinq box rangale ko it daa am looy indi rek am loo fa bàyyi waaw téléspectateur Ladoum TV dañoo cof rek indi waaw ci biir cof boobu indi tamit gisaat nañ fi beneen grande femelle boo def tampon bu ci ci ndigg li ak ci loos waaw kooku xam nga maa ngi lay wax sànq ci maal yi fa jot a jaar ci jamono bu mujj bii rek kooku doomu patience la mais yaayam aussi doomu Fadam Mbodj la waaw euh, doomu patience la patience yàggu fa mais yàqu fa waaw yàggu fa waaye yàqu fa doom patience la moom mi ngi tollu ci deuxième portem mooy nàmpal am na benn mbote bu ñuul moom mooy deuxième portem moog rond ñoo ko jur. Mhm. ah téléspectateur Ladoum TV gis ngeen doomu patience boobu di nàmpal doomu rond bi ah li may wax rek ñàkk am ci doomu rond yi wóorul de ak lu élevage daw leen wuti ci doomu rond yi bala muy xat ba tey gisaat nañ fi benn benn mbote la wala nu mu demee noonu kooku jeune la wala. non añal la añal la moom it doomu rond la mooy li ma wax sànq rek rond point ku xeluwul ñëw da nga xelu ñëw kon na xelu ñëw a gën xelu ñëw waaw moom it doomu rond la yaay ji aussi doomu patience la waaw moom yaay ji doomu patience la mooy korom ak beeg saalum bi boo ko boolee lii lay def waaw. ah téléspectateur Ladoum TV waxaat naa leen ko ñàkk am ci doomu rond yii erreur la. ku yebu na teel a ñëw balay xat ndax day xat de ak lu élevage bàyyi leen xel bu baax a baax a baax kii di rond point Mor nga fàttali ñu bergerie fan la nekk ak numéro téléphone. waaw bergerie bi mi ngi nekk euh, Thiaroye Gare euh, mbedd cinéma ku ñëw foofu rek boo ñëwee bergerie Damlo di nga ñu fa fekk incha allah di wax ni numéro téléphone bi 77 638 32 05 wala 77 451 22 80. moo nekk ci bâche yi noonu numéro bi waaw di wax ni di leen santaat waa di leen wax ni ni ngeen di jàppee ci élevage ba ngeen jàppee ba léegi bawu leen yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla taxaw barke alxuraan kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax surtout suñ grand bi nekk ci ginnaaw te du nangoo feeñ mukk <laughs> macha allah yàlla na ko yàlla sàmm te taxawu ko te aar ko barke alxuraan nekk grand bu ñàkk keñaan macha allah di sant nag waa bergerie bi yëpp te xam ni lii du bu dee daamloo kese liggéey bi mënut a egsi fii ndax moom la ak ñi ciy jàpp ñi ciy jàpp ñi ci feeñ ñoo gën a néew waaw ndax bergerie Dame Lo li ci ginnaaw moo ëpp li ci li ñuy gis waaw moo tax liggéey la boo xam ne liggéeyu diisoo la ñun ñëpp dañ koy waxtaane lu ñu ci def dañ koy waxtaane moo waral liggéey bi di egg fii waaw di wax ne nag euh, loolu rek ay élévage élevage na boole rek mais bu mu taxalee waaw macha allah kontaan nañ trop bu baax a baax a baax macha allah jërëjëf jërëjëf. Oh.